waaw ñu ngi lay fay ba biir kër ñoom fee seng seng fay wala kër ñoom Marème fay rek. boo si taamu yow. instant bi Marème Faye. bu dee ngeewal ma kër ñoom fee seng seng fay. wala kër ba Cheikh Bamba général. Sénégal Cheikh Bamba général ma fayee la ko fi mu ne nii. xam nga Sénégal kañ lay fubal. Euh, waaw xaw ma nag kan la wax dëgg yàlla. mais Sénégal daal man moo ma ñor. match Sénégal rek laay seetaan sama àddina voilà di leen ñaanal Lions yi dañu am jom am fulla am fayda bien vrai que Sadio maane fubalul mais ku dul moom bu dul moom sax dañoo war a gagné ndax fubal xaw ma ñaar douze douze douze personnes ñoo koy def. yaakaar naa ko de douze personnes. est-ce que waaw douze personnes. non onze onze. onze ak arbitre bi muy douze. léegi nag Sadio maane bu ñëwul Sadio Mané kese mënul gagné équipe dañ ko waxtaanee rek. Sadio Mané kati mënul gagné équipe léegi ñoom nañu boole am fulla am fayda gëm ne bu dul Sadio Mané dañuy dañuy dem voilà Sadio Mané nag suñu wax dëgg yàlla suñu yaakaar la ñun sénégalais yi wax dëgg yàlla di ko ñaanal tàngam bi xaw ma tànk la gaañu xaw ma bopp xaw ma fan mais di ko ñaanal wér bu baax a baax a baax a baax a baax mais gaynde yi nañu am jom am fulla am fayda tubaab tubaab bi moroomu naar naar tubaab bi waruñ ñoo gañe waaye luy eh nit bu xees warul gagné nit bu ñuul noonu la demee nag rey leen seen bopp voilà même bu ngeen ko jëlul sa ngeen sori si ah mais ku jël coupe d'Afrique normalement coupe coupe du war nga mën a def différence. final la waaw la ma la waxoon ci coupe d'Afrique bi rek boo góorgóorlu sala say dañ koy wat wala ñu peñe la ba nga mokk amal fulla rek am jom bu baax a baax soññal xale yi da nga waroon a yóbbu yi ñu dar leen barki seexul xadim ku ci nekk fa di yambar yambarlu ñu yàlla ba ci kaw dóor si suuf dara du xew. non non staff bi ay mbër la waroon doon ay mbër sadik voilà ku yàq suñu bal defaraat ko ku yàq suñu penalty yi defaraat ko lan moo tax ñuy rate ay penalty ay kufra ay kii nañ dugal gagné teg bandi barki alxuraanu karim tubaab duñ dara. nañ teg bandi tegal leen lu metti coupe du monde la ñu soxla ñun. staff coupe d'Afrique yàlla doxal nañ mos nañ ko dañ ko mos rek. waaw mais mais coupe du monde la ñu soxla jaayantal leen ko noonu la demee nag eh der bu ñuul du moroomu borom der bu weex jaayantal leen ngeen teg fa seen bakkan ñëw ku dul Sadio Mané dañuy gagné. léegi ku Sadio Mané ñëwul ka nga yaakaar moo ko remplacé. non mi ngi fa ay ay ay Aliou ay ay Tony Sylva ay Crépin xaw ma ñooñu ay ay Coly ay ay El Hadj Diouf ñooñu ñu bi ñooñu nañ ko jaayante. voilà noonu la demee nag. sa classement yow sa classement ñan lañu war a teg mooy góol yi. kon dañ ko teg si kaay mu góolu. ay ñoom ay ñoom ay ñoom kii waay nu mu bi ay ñoom euh, ku gàtt gi nu mu tudd ay carapin nañ nañ toog gérer ñu foofu rek. état man nag joueurs nii miinu ma leen noonu de. mais xam naa ne ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ. mais dafa sa classement sa classement yow. nañ fa teg yaay coach bi léegi dafa sa classement. ma nekkoon coach moom wax dëgg yàlla ah damay teg góol bi nu mu tudd góol bi xew bi lii. ke voilà njaago bi. mendi mendi mendi mooy góolu n'est-ce pas dañoo fotal ma kaay ah euh, keneen ki Pape Abdou Cissé ak Jolof Jolof bi fii Ndiaye nu mu tudd sax barki Seexul Xadim xaw ma leen. xawma ma leen ay Koulibaly voilà Koulibaly fatal ma défense bi ah. kooku amul ay caaxaan daa ñàkk problème ba du toj kaani Koulibaly fatal ñu foofu ngir yàlla bu dara seen. mais eh, ah, na fan. kii nu kii nu ay Gana Gueye Gana Gueye ci latéral bi moom da koy gérer. milieu la milieu terrain Gana foo taxaw baax man xam naa la bal bi rek ngay topp dugal la ngay def eh yaay sunu saa yu maanaam instant ko. mais si kaw nag a teg. attaquant yi xaw ay El Hadj Diouf ay Fadiga. mais Ismaïla Sarr xamoo. mooy gaan bu njool. waaw naa ko. dama dëkk Ndar Ismaïla Sarr kooku bañkat la ndar ndar la kooku du kooku du maye dara Ismaïla Sarr barki Seexul Xaadim ñaari bii la sas boo amul gel ma may la gel boo amul jabar nag. am na jabar am nga jabar ba am doom boo am boo boo boo boo bu bu ñibbisee du sëy dañuy nangu jabar ji jox ma ko. léegi Bamba Dieng nag. Ah, wax yow xam nga ne man ñoon dama leen di plané noonu la demee nag Bamba Dieng ci attaquant bi Bamba Dieng dugalal sas naa la ñaari bi may ma loolu ci daraje sëñ Bamba. ak Roger Mendy ay Roger Mendy ñoo ñëpp ci ci waaw Roger Mendy fu mu bokk fubal milieu wala ailier terrain wala. attaquant attaquant ñett rek Ismaïla Sarr Bamba Dieng. ak ak Mendy Rosalie Mendy ñooñu rek war nañoo mën a jeexal affaire bi taxawal ñu foofu instant bi Sadio Mané nekk fi ginnaawam ba nag na instant bi yéen lañ sas affaire yi. rayante leen. Euh, milieu terrain bi. rek. Nampès Nampès Mendy. Nampès Mendy moom ci milieu terrain bi la wala défense bi. bi la waaw ah, man yow kenn dàqu la libéré ah Krépin ah, <laughs> Krépin moo rafet nii rek Krépin géré ñu attaquant bi. di Okocha. xam nga lan lañ bëgg gars yi teg fa bakkan bi. te karim affaire bi xaral la rek affaire bi jarul sax bi di rafet bu la benn bor raw eh, bal bu ñëwee wala nit ñëw na bal bi romb ah nit ki des wala bal bi des nit ki dem noonu la demee dóor leen dal tubaab bi seen yaram neexul instant bi corona bi bàyyeegu leen tubaab ñu am dara coupe du monde c'est le kese noonu lañ jëm ñun. jaga Sénégal bukki amateur yi le promoteur des jeunes espoirs revient le 27 novembre ci arène national bi yoon nag dafa nar a gën a tàng gën a neex ndax amateur yépp ko namoon moom Sam Mbaye Fall njiital Sam Production mu ne le 27 dama leen andil combat bu rëy combat bi dox ci diggante ñaari goxi làmb ndax ku wax Jacob Baldé wax Pikine wax Ama Baldé ku wax Ndigal wax Géejawaay wax Balla Gaye 2 muy grand combat di combat bu amateur yépp di xaar la ca gën a tee neex nag mooy bile drapeau la ñu dippe Omaro Omaro bu Serigne Saliou Omaro bu Cheikh Béthio Thioune Omaro jàmbaari Serigne Saliou Ndigal Thioune nekk ambassadeur u KPI gannaaw bu yàggul la ko waa Raaya Awards daal di def communicateur du peuple sàmbay ne fête bi kon ci arène nationale le 27 combat spécial ba lay brisé bu écurie jàmm ji kër Mbay Fall moo nar a jàkkaarloo confiance bu écurie Tivaouane Peul mu ne combat spécial boobee nag mooy trophée ETDR di établissement Touba Darou Rahman sàmbay fa seen leen a delloo njukkal ci seen njàmbaar ak lu baax li nuy def ci làmb ca combat préliminaire ya premier combat diggante bu déggoo ak yanda bu sura mbër bu njàmbur Casamance mbës bu Malika nekk écurie ba ci mook Siteu Lawbe bu ressortissant Fatick jam zo 2 bu Bosco Sow ak bébé les bu école de lutte Balla Gaye kooba bu caaroy mbooloo ak bébé ama bu école de lutte Balla njool waalo bu écurie Grand Yoff mbooloo dana jàkkaarloog Tyson bu écurie Songane Gueye metti bu Kër Massar ak Antou Ndiaye bu Dalifor mbooloo bas 2 bu caaroy sur mer ak maaf gi bu Badajon ñu ne bile bés nag moo tax sàmbay daal di ciy dugal ñiy jàppale xam ne li jëm ci wàllu batiment ci wàllu génie civil ak mbooleem lu jëm ci wàllu BTP bàyyil ak ñoom ànd ceeg waa nuuru la bi baax te wóor ñi nga xam ne façon jus naturel boo bëgg am nañ ca buy seral xol rax ca doole ñu indi leen bu bees tàq bi sénégale yi doon laaj muy jus gingembre ba ñu ànd ceeg alburax automobile ñi nga xam ne li jëm ci wàllu vente ak location automobile bàyyil ak ñoom dañu la koy defal ci njëg yu xéewale te mucc ay ànd ceeg laay bu deef commerçant bu mag bi nekk ci Petersen en face Orca di jaay lépp lu jëm ci wàllu habillement prêt à yu amul fenn ànd ceeg waa muy boisson énergétique bi nga xam ne boo nekkee compétiteur nga xam ne boo nekkee sportif moo war a nekk sa xarit ndax moo lay encouragé ci ay entraînement tey dalal sa yaram ànd ci nag ak waa Penipro muy entreprise bi yëngu ci wàllu gel lave mais lave-vitre parfum de chambre ay eau de javel ay savon liquide ak ay savon poudre maanaam lépp lu jëm ci wàllu setal ak xeeñal xet gu neex ñoom waa Penipro ñoo ci teg loxo ànd ci nag ak waa Go Parfum nga xam ne façon parfum boo bëgg ci àdduna jokkoo ak ñoom ñu jox la li nga bëgg kon mbokki amateur yi bés baa ngoog le 27 novembre ci arène nationale combat yi ñu dippe Omaro bu Serigne Saliou sàmbay ne entrée dama koy yombal ba dee bu dee supporter 2000 francs la amateur 3000 francs bu dee loo 5000 francs kon mbokki amateur yi bës a ngoog ci biir bës yi combat bi kenn warul xaar ku la ko nettali muy diggante Zago Balde ak ndigal bu école de lutte Balla kon ay ca leen ñu dem ci arène nationale le 27 novembre